dalli nag jàmm ci tas info abonel ngir dara bañ a di la nag jàmm jugement kii di Ousmane Sonko loolee lekki di Ismaïla Madior Fall daal di woon ñëw ci conférence de presse bi nga xam ñoom ñi fare ci gouvernement bi adoon nañ ko amal moom moomu ànde ko ak ki nga xam ni moo di amadu Ba ak ki nga xam moo di Sidiki Kaba ak it ki nga xam ni moo di Abdou foofa Fofana ñoom ñoo ñëpp ñëw nañ ci yenn ci ay mbir waaye moom mii di kii di Ismaïla Madior Fall jiite li nga xam ne moo di wàllum justice ba kee ca aju moom moomee ñëw na ci li nga xam ne moo di lu jëm ci lii nga xam ne moo di wàllum jugement Ousmane Sonko moom moomee nag di Ismaïla Madior la nga xamante ni moom la xamle moo di ni yëf ya àtte nañ ko waaye la des moo di li juge bi war a bind te moom nee na juge bi mi ngi ci jamono ji ci bind bi te daanaka la ca des dootul bëri ci li nga xamante ne moo di li aajo ci tëju ki nga moo di kii di Sonko moom nag nee na waxtu woo xamante ni juge bi pare na ci loolu muy bind ba notifié ko moom Ousmane Sonko bu boobaa moom moo war a demal boppam ca fële ca prison waaye wa illah bu dee demul ñi nga xam te ne ñoo di way autorité compétent yi nga xam te ne ñi ngi yëngatu ci wàllum justice ñoom ñooñu ku ci nekk mën na ko arrêté ni ko coppet yóbbu fële te prison loolee nag nekk loo xam te ni moom la ñu xaar ndaxte ku ci nekk yaa ngi koy partagé mu di idée boo xam te ne ku ci nekk sa commentaire lu bopp nga cay wax ñu tàmbalee ko ci ki nga xam ni moo di biram su Souleye Diop moom moomee mu ngi doon xamle ci gaankat bu mu kii di Ousmane Sonko mën nañ ko ne coppet ci période tabaski gi nga xam ne ca la noonu nekk mu di loo xam ni bu lu indi lay doon leneen la cay firnde moo di ni ki nga xam ni moo di kii di El Malick Ndiaye tey jii ci suba ca la publier leneen loo xam ni tax na nit ñi dar seen gémmiñ ci ni ki nga xam ni moo di Jibi Gueye Ndiaye moom mi nga xam ni moo daan indil kii di Ousmane Sonko lu jëm ci ak lekkam maanaam daal wàllum ravitaillement wa moom moomee la ñii di takk der yi ni kat tey jii doo dugg foofee ci domicile kii di Ousmane Sonko nekkat beneen mbir ba nga xamante ni dina suscité beneen débat ci ni ki nga xamante ni moo day indil Ousmane Sonko lu mu lekk ak lu mu naan bu dee duggatul kon mbaa du indi beneen jiyee ndaxte gisees na ñeneen ci ay patriotes yoo xamante ne ñi ngi naan kat Ousmane Sonko kon kat yow lépp luñ fa dugalati xamal ni bu ko nangoo lekk ndaxte bul xam lu la ca mën a fekk. loole nag indiwaat beneen débat ci ni kat moom Ousmane Sonko mbaadu dañ koy bëgg a woom yóbbu fële ca prison wala tamit lan mooy bëgg xew ci li nga xam ne moo di ci situation ci ëllëg yi nga xam ne ca la jëm ndax moom mii di Sonko kee di doomam gannaaw ba nga xam ma ngay jànge fële ca Seydou Nourou la am moo di lan ñi nga xam ne ñoo di élèves yi ñoo doon bañ ngir def li nga xam ne moo di composition yi ndaxte ki nga xamante ne moo di kii di Ousmane Sonko gannaaw ba nga xamante ni buy dugg ci li nga xamante ne moo di ci école boobu lañ koy fuwee na méttee waraloon ñii di élèves yi bañaan ba mujj boycotté li nga xam ne moo di wàllum composition bi nekkat leneen lu indiwaat beneen débat ndaxte ñeen ñi ngi koy partagé ci ñu ni kat xale bu nekk am na droit ci lii wàllum njàngam ci lii wàllum éducation maanaam ak wàllum sécurité waaye du ni li nga xam ne moo di dañ koy natt ci li nga xam ne moo di. ci ay waajur wala leneen leneen ba tey jii mu di ay mbir yoo xam te ni ma ngi doon xew ci li nga xam ne moo di mars bi ci mois de juin bi mu di lii di manifestation yi ndax gisees na ñi nga xam ne ñoo di wàllu observateur doon fésal ci ñett ci ay étudiants yoo xam te ne ñoom kat nee na ñaar yi ñooñu ñëpp dëkkuñu fi nga fi nga moo di ci université Cheikh Anta Diop nee na ñoom ñoo ñëwee ca Casamance lañ jógee ñëw ngir uniquement def ay njombe loole ñi nga xam ne ñoo jiite wàllum syndicat étudiants yi wet di ko mat débat bu jamono ji mu ne cobbe ci réew mi ndax kat ñoom ñoo ñëwee seeni certificat d'inscription nee nañ ko dajji ci biir réseaux sociaux yi ngir xam xamle ñoom ñoo ñee ci étudiant lan te it ci université Cheikh Anta Diop foofee fa lañ doon jànge wuute lool ak li nga xamante ni ñii di wàllu l'observateur doon nañ ko xamle indiwaat benn débat ndaxte ñi nga te ni ñoo di way étudiants yi nga xamante ni ñoo nekk ci faculté de médecine lañ xamle moo di ni li moo di seenum ñooñ liñ ko def ñoom dinañ fexe tous les moyens légaux ngir ñu mën koo bàyyi ci li nga ni moo di ci prison nga xamante ni ca la nekk moom mooy nekk étudiant boo xamante ni mi ngi inscrire woon ci cycle li nga xamante ni moo di moom moomee jamono jii man nga fële ci prison